سرا وجارا في البرايا صمدين لم يبن مثل الموسى محمد سرا وجارا في البرايا صمدين لم يبن مثل الموسى محمد سرا وجارا في البرايا صمدين مدلنا الإسلام والكفر ما وبنصيحة لكل سمام الله في كل زمان يخرج بزار والباطل من أتى لله في كل زمان خدمته أزن الخيوب أصحبا والاستقامة وسبا وبات li baara kawnul Mustafa Reysa ku sopp Seydina Muhammad li baara kawnul Mustafa Reysa lu kullu man xat fu du looru saa xul xadama xul fawqa kulli raqaba minu saaral xuru kul mën a baam Muhammadul misaal faati ku sopp Seydina Muhammad la ko taxaw ñu màggal yaa Rasulullah Muhammadul misaalu lam yaati fi ma madaa wa abadan la yaati sabata anna rabbana lam yuridu salaamaaleykum maa ngi lay salaam maa ngi lay fay. am tey waaw mhm. dëgg la dëgg la sa diggante am ma ci am li ma la ci mën a wax bëri na mais xam naa du fi xaj. waaw mosal ma tuuti rek. xam nga parce que ma man fi laa dëkk si Basor laa dëkk am dañoo yaroondoo depuis ñu nekk xale ba léegi fii laa dëkk donc moo ma jaral sax tey déplacé wu ñëw Euh, te bu doon feneen la tam bu ma ko mënee incha allah bu ma ko mëntoon sax dama koy def waaw am jaral na ma lu nekk parce que dañoo yàgg mu yàgg maa fekk fu nekk nag ku baax nekk nit ku baax ku gore ku tabe ku am kóllëre am daal li ma mën a wax ci moom bari na dañ koy ñaanal yàlla euh, yàlla lafal ko cat te mu àggali ak sagoom tàmm ma nag di wax ci genre yu demee nii da ngeen may jégal rek waaye am li ma mën a wax ci moom bari na nañ ko ñaanal rek waaw nañ ko ñaanal rek. asalaamaaleykum bon ñu ngi ñëpp ku si nekk si turam ak santam di gërëm di sant euh, am ah, moom dañ koy ñaanal rek. ndax nekk na rakk joo xamante ni vraiment rakk ju am yar la rakk joo xamante ni lépp lu mu am mu ngi koy bokk ak ay mbokkam lépp lu mu am Sibassor la koy andi. donc di gërëm di sant waa Sibassor di gërëm aussi ñëpp ñi nga xamante ni jàppale nañ ko ci journée bi di ñaan aussi yàlla li mu mun ren yàlla na ko mun déwén di ko ñaanal di ko di sant ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ si ba pour réussir tout euh, ndogu bi vraiment ñu ngi koy ñaanal li mu bëgg fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggal li mu mën ren yàlla na ko mën déwén merci beaucoup jërëjëf waaw booy am ndaw de su may wax ci moom fii ba suba du jeex baax na yaru na te am na kóllëre ndax mënoon naa am lii mu am tey des ndakaaru waaye am lépp lu mu am suba ba ngoon jot ah mu ngi ñëw si ba soor ñun ay day nit yi démbam lañ te man magam laa sama kër fa la nekkoon guddeeg bëccëg waaye fàttewuma benn yoon am su may wax ci moom tey du jeex sëñ bi xam lu ma koy ñaanal gudd fan ak wér te wér si la lépp xaj fa mu bëgg àgg yal na ko yàlla àggale yàlla lafal ko cat waaw te am na ngërëmu ndeyam am na ngërëmu dëkkam am na ngërëmu ay magam am na ay ngërëmu ay rakkam doo rek laay ñaan foofu rek laa mën a yem ndax sama wax du bëri si am ndaw. wa rahmatulah ngi maa ngi nuyu ñëpp li am li Aida wax rek. bu ko xe bu xëy da xasee boo rek amatul lu ñuy wax quoi ndax am sunu nit la doon na nit ku baax doon na nit ku yaru doon na nit ku fàtt ku am kóllëre doon nit ku bëgg Kaolack doon nit ku baax man musuma taxaw sax di wax parce que man am aw ma di wax waaye nit moom boo gisee ci moom bu boo toogee ci ay bokkam dégg ñu koy waxal lu baax nga xamu ci lu baax te waxaloo ko yaa ngi def loo xam ne nii yàlla euh, sant la lool quoi. ndax surtout euh, nit bu bëggee waajuram foo ko fekk day wax sama yaay sama yaay sama yaay te nit kooku euh, pour nga pour nga jàll dafa yomb quoi ñu ngi koy ñaanal aar bi muy bu jubli ni yàlla ko ci yàlla defal jàmm lu mu ci lu mu ci am yàlla na ko jëriñoo ci daraje Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla ubbil xéewal surtout def ko ni musique ni ni artistes yëpp ci àdduna bi ñu koy dégg fu ne parce que alalam du ko boole kenn ni mu mel tey ni mu mel tey noonu lay mel suba boolewut dara tey bu la fekkee tey xam na yow mii nii yaa ko ëppale sax dina def benn gest boo xam ne nii dafay rafet te loolu geste noble la ñu ngi koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla jàppale Wally sekk mi nga xam ne nii moom la ko yàlla boole ci aar bi mu nekk ak moom yàlla leen yàlla jubale yàlla bu seytaane dugg seen diggante darajay Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla fay daal maanaam darajay Seydina Muhammad waaw ah, sama doom xanaa di gërëm di sant mu mën lu ko raw tabaarkàlla di gërëm dëkkandoo yi di gërëm sama taaw bii di magam tabaarkàlla macha allah di sant di gërëm nag magam yii yëpp macha ay nijaayam rawatina tubaarkàlla ñi muy àndal ndakaaru waaw di gërëm maire dëkk bi di gërëm ñoom Pa Ibu Njaay di gërëm euh, euh, Mbay Saar ñoom wax dëgg yàlla tubaarkàlla boo limee jum waaye foog ma gërëm leen ndax dañoo bëgg am am ñëpp a ko bëgg di ñaanal Waly Seck nag lu mu am ren yal na mun déwén lu ko raw Waly sekk moo bëgg am moo jàppale am damay ñaan yal na yàlla yàggal seen ànd te barkeel ko barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif waaw am nag mënuma koo gërëm dama koy bàyyeek yàlla baax na bëgg na yaayam bëgg na ay magam te tabaarkàlla macha allah bëgg na ñëpp macha allah di gërëm itam xale dëkk bi kenn barki biig ba tey kenn nelawul ñu ngi ci ganaar yi ñu ngi ci frite bi ñu ngi ci defar lépp. waaw wax dëgg yàlla am daal amul noonu Sibassor amul noonu seen nag dañ koo bëgg di gërëm ñi mu àndal nag tabarkàlla xale yi muy àndal di jouer ñoom ñëpp a ko bëgg waaw di sant xale Sibassor kenn desut damay ñaan yàlla na yàlla na yàlla ànd yàggal seen ànd te barkeel ko waaw musal leen ci saytaan ak musa baag balaa cet <coughs> barke Cheikh Naama Tidiane Chérif barke Alaaji Ibrahima Niass Amadou Ndaw lu mun ren yal na mun dewen lu ko raw moom moole moom ak mbooleem ku muy àndal waaw bëgg na yaayam yërëm na yaayam mu ngi may tagg waaye maa ko war a tagg ndax tubaarkàlla macha allah maako jur waaye bàyyi bàyyi lu ma dara la wala cat fonk na ma bëgg na ma respecté na ma ni ma sama taaw bi fonkee ndax nee nañ eh, teglante ndab bu jiitoo

def xam mm. mm. dara xam nga jubóog say mbokk moo gën nga dëngoog ñoom jubóog say mbokk moo gën nga dëngoog ñoom tey foo mënta dem awma lu mag Kaolack awma lu lu raw Kaolack waaw man Kaolack rek laa am parce que fi laa juddoo fi laa yaroo si ba soor sama dëkk waa Kaolack bëgg ma sama waa dëkk bëgg ma waaw kon tey jii nii bu ma nekkee wooree Dakar ba nga xamante ni instant bi nii euh, war a joxe ndogu waroon joxeeg ñëpp ndogu mënoo dugg fu nekk nga jox ko sa suukaru koor amaguñ ko noonu yaa ma gën a xam mais da ngay am li nga xamante ni mooy ay bernde génn tey jii da lay leer ne tey jii bëtu weeri koor ku nekk am na loo xam ne yaa ngi ko togg sa kër te ñam bu saf lay doon parce que weeri koor bés weer bu sell la weeri koor weeru yërmande la weeri koor weeru jàppalante la man-man yi manu ko sax mais li nga am kasum néew da ngay ñëw nga bokk ak sa waa dëkk foo mën ta dem nag lay fa ba mu nooy te layoo sa dëkk amul sens bukki wiiri wiiri jaari ndaar yi Hmm. <laughs> waaw déggoo bi ma ñëwee léegi ma ne la tubaab ñëw na Paris Amadou Ndaw ñëw na dëkk maamam tubaab ñëw na Paris <laughs> loolu la daal waaw mbóot la <laughs> waaw parce que man maa ngi ñëw di di di euh, di def album mm-hmm. maa ngi ñëw def album def naa album boo xam ne mu ngi génn mu ngi ñëw mm-hmm. tegal ko samay fans tegal ko àdduna bi wërngal këpp maa ngi ñëw ak ay projet man te man dama ne am ndaw man kenn bañu ma man man man ñëpp ma bëgg waaw dëgg neexul. <laughs> gis nañ nga ah mais euh, Waly dafa woy papaam rek. Mm-hmm. Waly dafa woy papaam. li ko li li ko war rek la la def. dóor sa baay doon sa baay moo gën dóor sa baay waale bu meloon neneen du neex Youssou Ndour bu meloon neneen du neex Youssou Ndour parce que nag Youssou Ndour baayam la waaw waaye mu topp waayu mu topp woyu baayam topp la baayam doon ba woy woyu baayam woy ko ko wàcc na wàcc na sunu baay lañu woy parce que Maria Sine may sa bigéey dafa baax te suñ papa Youssou Ndour bi mu wëy boo ko fekkee mu toog sukkal ci suuf ne ko ñaanal ma lum la ca ñaanal mu am ndax tarbiyu na a rafetal ko ba mu mel ni kon waali nag bu wëyee wëyu baayam ba pare wëy ko ko wàcc na Maria Sine may sa bigéey may sa bigéey maar eh, dafa defanteeg man noo xam ne dama dama sax yéemu dama sax yéemu hmm, parce que man am na que ñëpp ma bëgg mais tamit nit ki ni la def noonu nga koy wax ni mu la def noonu nga koy wax dama pare suma suma su ma su ma ñëw pour ñëw fii def si ndogu bi barke Seydina Mouhamed waxuma ko Waly Seck xaw ma fu mu ko déggee damaa toog mu oo ma am ah, mën ah, mu ne ma waa diw dina la envoyé temps te ba ma ko envoyé damaa ndogu nag damaa ndogu nag damaa ndogu damaa ndogu barke ñoom yonent bi dafa mel ni dege tey fii riit nañ banaaf ak ganaar yi nag waaw ay da ngoom nañ waxante dëgg def nañ ganaar yi def nañ beñe yi dara manqué wul sama waa dëkk jàppale ma organiser waaw yaa Seydi seen borom États-Unis moom duma ko dama koy bàyyi ak yàlla am na koo xam ne nag moom daf na ma bu ma tudd looloo ma métti looloo ma métti bu ma tudd dafanteeg man teraanga ba pare ne ma bu ma tudd yow moom may bañ a tudd li nga def da ngay mër waaw xam nga xam naa yàlla na jaamu yàgg paaye bu njaay aw ma fayam ndax paaye bu njaay tamit dafa ñëw andi luy boisson luy boisson boole ceeg ñëw yendoog man sama musale maire dëkk oona ma yebal nit mu ñëw ñoo mbay saar sama mag paap gi fay ñëpp may gërëm sama yaay waali buri faat ma fay saa bu yàgg ku man daama ñaawut galo lépp lu ma man yow la lépp lu ma man yow la lépp lu ma mel yow la man rek la condom bu nekk ci sama famille di def aar man condom la ba mu méttee ba métti danga cee jàpp tëx nga gumba nga luu nga soutenir nga ma jàppale nga ma waali buri faan ma yàlla na nga toog ba lekk ci barke xam Muhammad ku sonn yàlla nga lekk ku sonn yàlla na nga lekk may bëggee ñëpp nag waaye bëggee ñëpp waaye non damay ñëw xam na ngaa dof damay ñëw maa ngi ñëw def def fi soirée boo xamante day mel ni ketembe te nag tànn beer laa jël may ko waa Sibassor waa Sibassor tànn beer ba pare comme nag Kaolack tamit te dama daan def Sibassor damay dem wàcc Kaolack nag dem xool benn milieu bu riis waa Kaolack ni ñëw fekk ma parce que man ñëpp ma bëgg te dama ne Kaolack laa yor te instant bi ne comme tëggal naa leen nag ba toll fenn fii dama leen di may tànn beer ndax fi laa ko tàmmee woon def dem Kaolack nag tegu ko fa waa Kaolack ñëw ñoom ñu ñëw ñu baal seen artiste loolu laa bëgg. Ah. Mm. waaw. Mm. waaw. waaw. waaw bëggoon naa avant loolu nag dama am sama ay sœur yu fi nekk ak sama copain. waaw bëggoon naa avant loolu. ñu daggee ko foofu. maa ngi bëgg ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo ba doon seetaan te di leen di bëgg ay conteneur waaye ki nga xamante nii nag mooy. Dakar midi maa ngi leen di ziar leen di bëgg li fi fi mu ngi fi dañu fi ku koy ci côté manoo ko doo ko ki moo koy Dakar midi yaa koy corote tey ma wax la li ma fekke say at lim ci li ma fekke foo wala da daan teral nga buur teral nga baa doola teral nga say maas man sax am nag da ngeen ma teral ci sama nawle kenn demul ba ma xam nga li ngeen ma desal. te day ñëw visa passeport ak laissez-passer argent de poche pousse